soleil levant dañoo am seen spectacle bopp chaque année am seen anniversaire bopp chaque année waa bébé bi jooy fu mu jógee bébé bi jooy saan fu mu jógee kuy ni doom fii ah bébé bi ah mi ngi nii nga yor sa bébé eh non bébé bi mu ngi jooy ah bébé bi moom fii daa bëri sax fii bébé fii bébé fii bébé fii bébé tàcc leen loolu bébé sax hey. Eh. Eh. <laughs> télé sénégal point com xibaar yu wóor te leer kenn du la ko nettali